di sant yàlla bu baax ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di julli si yonente bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm sama ñaari waajur di nag remercier ñi nga xam ne ñoo di administration territoriale bi nga xam ne sous-préfet moo ko jiite woon sec adjoint bi ci teewaayu directeur SEDAF donc loolu dama koy rafetlu trop vote bi aussi jaar na amul xëccio amul euh, benn xiro amul benn ŋaayoo def nañ ci anam yi mu gëna a voilà mais ñun ay liir naaw mën nañu wax ay liir naaw Amadou Bekkaay Jóob la ñu woon moo doon coaché ñu toppoon ci ginaawam di ko accompagner di ko au niveau du ministère de l'éducation nationale à travers la direction des équipements scolaires depuis 2012 on a cheminé ensemble mais aussi ci fi ci mairie bi moi je gérais la commission coopération décentralisée et des relations extérieures donc li ñu doon def moy dem à Dakar taper les portes des partenaires les partenaires techniques et financiers ak ñeneen partenaires yu ñu mën am rien que pour indi ko Ross Béthio rek ñun Ross Béthio moo ñoroon moo le maire Amadou Bekay Diop donc ci ñun ci siège boobu la ñuy topp ba léegi amul duñ si bàyyi benn yoota fi mu doon teg tànkam man aussi fa laa fas yéene teg sama tànk parce que bi ñu à Dakar partenaire bu mu Bekay mës a seeti ànd naa ak moom won na ma leen xamale na ma ak ñoom am na ay partenaires yoo xam man maa koy ñëw ni ko Bekay xaaral ma yóbbul si gars

kooku dinañ gisaat ki nga xamni moy directeur bi doon xaritu Bécaye le maire de Ndiandane mu continuer chantier bobu benen bi moy walu centre de santé bi gis nga limu ci def poste de santé lañ won mu ñëw ériger que en centre de santé donc limu ci wax li ci def mënu mënu ko lim donc fofu mu ko yóbbu aussi bëgg nañ que mu relever le plateau technique vu la vu le contexte de la Covid-19 inondation yi aussi heureusement nous avons ce qu'on appelle le PACASEN rural kooku doon euh, ross est éligible Ross-Béthio est la commune de ross est éligible boole nañ ko si 123 communes yi nga xam ni ñoom la ñu fas yéene jàppale ren te ñun li maire du waxoon le défunt maire mu ni moom loolu su ko ca amee ci inondation yi la koy dugal donc loolu man su ma ñëwee ci loolu laay topp loolu laay jaar ñu jéem ko def si inondation mais mieux il y a des partenaires yoo xamante ni nee nañu actuellement li may sas moy ñu fexé ba jappalé ñu ci inondation yi ndox mi mëna gën ci dëkk bi ñu évacuer ci Ndangalma moy dépression bu bas fond bi nekk côté ginaaw canal de Pédémas donc yoy yop dinañ ci gëna a liggéey bon avec le soutien des partenaires et de l'équipe municipale et de la population de Ross tout entière